لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di dénk sunu bopp di leen dénk taqoo ak ragal yàlla ca xutba bi weesu tuddoon nañu am solo goo xam ne wéetal yàlla ak sellal diine ñeel ko am na ko solo ñu waxoon ne boroom tawxiid ñu di boroom la ilaha illa allah àjjana la jëm ala kulli xaal waaye ñu junjoon ne ñàkkul ay chart yoo xam ne ki ñuy bégal ne bu waxee laa ilaha illa day dugg ajjana dana jéem a fexe ba chart yooyu mu amal ko ndax su ko amalee ci la laa ilaha illa allah ja di wéree su ko defee mu yeyoo lañ ko dig kon jaadu na ci jullit bu ne ni mu war a góor góorloo ba xam charte yi nga xam ne bu dajee ak julleem wér su dajewul julli ga day yàqu kooram noonu ak ajam noonu lenn lu ci ne mu xami chartam di góorgóorlu ba mu mat ndax jaamu yàlla ga war a mat kon war naa góorgóorlu ba charti li nga xam ne mooy ndey yooyu yépp muy tawxiid mu xam ko ndax mu jéem góor góorgóorlu ba charte ya daje ba tawxiidam mën a wér ndax mu mën a yeyoo lañu ñu ko am tawxiid charte yooyu nag juróom-ñaar la suñ xutbab tey ci benn bi rekk la jëm mooy bi ci jëkk moo di bi nga waxee laa ilaha illa ngir nga mën cee jariñu jaadu na nga xam lu muy firi waaye dugleemaay rek goo xam ne boo ko waxee ci làmmiñ dal nay sotti nga daal di ciy jariñu daal di am lañ la dig déedéet waaye jaadu na nga xam lii nga wax lu mu doon ndax kat bari aana kuy wax laa ilaha illallah ci aw làmmiñam noonu te suñ ko waxee la muy firi dëgg-dëgg boo watuut mu ne ah loolu kat man mënaguma ko léegi kon bari na kuy dugg si ci lislaam ñi di ko sa laa ilaha illallah ne ko waxal rek ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu daal koy wax ñu ne ko jeex na demal léeg-léeg ñu tegal ko ca yoo xam ne sax lislaam faf tegalu ko ca tegalu ko ko ca ba noppi mu wëlbatiku nag yam ko ca tegaloon ñi noppi ca ba tax mu réere ko loolu ku dugale noonu nit ci lislaam tooñ nga nit ka tooñ nga lislaam dafa jaaru li nga ko wax loo mu wax ko nga ne ko lii mooy nangam ak nangam ak nangam ndax mu xam fii muy dugg doy na ko wala doyu ko te jàpp naa ne képp ku kuñ ko leeral ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee wax la li ñu la ci dig jàpp naa ne bu fekkee ne nit kese nga ko ànd akum xel mu mujj te am dara ci tawfiq kon da nga nangu laa ilaha illallah ak yim àndal kon ba ci jëkk mooy xam lu mu doon moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi ñu wàccee ci moom alquran ak tawxid ne ko faalam annahu la ilaha illallah xamal jàngal ba xamlu lan mooy la ilaha illallah yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wastaxfir li danbika wa lil muminina wal muminat su ko defee nag nga door a def yi nga xam ne mooy tax ñu jéggal la say bàkkaar yaag jullit yu góor yi ak yu jigéen yi kon loolu mooy jaamu yàlla gi kon xamal laa ilaha illallah door a jublu ci jaamu yàlla yi ndax kat mooy fondation bi su laa ilaha illallah wérut ay chartam daje jaamu yàlla gi su ñëwee pënd lay doon wala nañ ko woon ci gannaaw wëñ goo xam ne da ngaa ñaw ba noppi ko boo ñoddee rek da lay topp dem li nga doon def moo neen ñooy yem borom bi tabaraka wa taala nee na illa man shahida bil xaqi wa hum yaalamuun nee na ñiy jariñu mën a doon borom bi tabaraka wa di doyloo ëllëg seen ba ñuy mën a ramm sax keneen nee na ñooy ñooy ñi seede woon dëgg muy seede laa ilaha illallah ci seeni làmmiñ mu teg ci ne wahum yaalamuun te fekk loolee seeni làmmiñ waxoon xamoon nañ ko ci seeni xol gëm ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan ibnu Affaan radiallahu taala anhu jële ne ci moom mu wax ne képp ku faatu fekk xamoon na lan mooy laa ilaha illa allah nee kooku day dugg man maata wa huwa yaalamu annahu laa ilaha allah taxalal janna ku faatu te xam nga maanaam laa ilaha illa allah nee na kooku àjjana la jëm kon nag xam maanaam yi jaadu na nit ki xam ko boole ko ak sart yi nga xam ne dana ñëw ci kanam xadis boobu muslim moo ko génnee bu ñu waxee nag ne xam maanaam laa ilaha illa allah dafa làmboo ñaari ponk ponk bi ci jëkk moo di laa ilaha illa dafa aaje am looy dàq ndax da ngaa wax ne laa moo ci jiitu mooy day dàq dara ilaha amul benn buur wala xeetu pouvoir wala xeetu luy yàlla yàllalu wala kuy yàlla yàllalu koo xam ne saxal naa ko illallah ku dul yàlla kon dàq nga yu baree baree bari saxal lenn dong kon lépp lu ñuy jaamu moo xam aw xiram la moo xam pas-pas bu nit fas ci garab la wala ci cëwri bu muy takk walla pitaaw walla ak fas wala xeetu lu mën a doon ci nit wala sax nguur wala doomu aadama joo xam ne màgg na fi bëtam ba mu defe ni ki yàlla la war a doon wala am na dara ci cëru yàlla yooyu yépp danga leen di boole maasale leen ne dara du ci yàlla kenn rek mooy yàlla muy ki ma booleeg ñooña bind kon loolu mooy li ngay dàq ak li ngay saxal kon da ngay dàq yu bari saxal lenn loolu moo di laa ilaha illa loolu la baat bi di firi loolu nag mooy woote bi yonent yi mas di woote nag a jekk kon ndekete doonut loo xam ne dañ koy wax ci làmmiñ kepp mu doy waaye dañ koy wax ci làmmiñ xam lu mu doon jël engagement yi parce que yéen jëfe boo gisee saxaaba yi bañ duggagul ci lislaam ñu ci baree bari seenu dugg ci lislaam jafe xamoon nañ ne du baatu kese boo xam ne da koy wax su doon loolu da ngay jëw laa ilaha illallah bu noppi nga dellu ci la nga nekkoon bu dee da ngay naan sàngara nga dem di naan sa sàngara bu dee da ngay njaaloo nga dem di njaaloo bu dee da ngay carte wala ngay lekk alali jaamur nga dellu ca loola waaye xamoon nañ ne boo waxee baat bi am na leneen lu cay tegu ku ko ci attanul woon ku ne loola nga attanul woon waaye wax baatu kese bi yomboon na boo gisee Ikrimatu ibn Abi Jahl bis bi nga xamee ne yonent bi ànd ak saxaaba yi ñi ñëw ubbi si màkka nangu màkka ci yéefar yi ñenn ñu ñëw di tuub di wax laa ilaha illa allah moom mu war gëleemam daw daw ba àgg ca tefes ga fa jidda toog fa di xalaatal boppam ba mu yàgg mu delsiwaat tuub ba muy war gëleemam di daw du baatu wax bañ a wax baatu laa ilaha illa allah taxuloon muy daw ndax su doon lool rek mën naa ñëw fi yonente bi ne laa ilaha illallah bu noppee dellu ci mu nekkoon waaye xam na yan ba cay tegu yan boobu moo taxoon muy daw bi mu demee ba jëdda nee na dafa toog di xalaat ci lii ñu koy woo ak lim nekk lu ci gën bi ko comparé ba gis ne ah man kat sama nite ndeketi ci jaamu yàlla la nekk waaye nekkul ci jaamu xiram foofa la waññikoo ca tefes ga ne gaal la doon xaar gaal la doon xaar su xelam delsuwul woon kon di dugg gaal dem faw ndax bañ a wax laa ilaha illallah ngir yi ciy tegu waaye bi mu xalaatee ba xam ne nangoo wax laa ilaha illallah jël engagement yi ciy tegu moo gën ci nit nga nekk di jaamuy xiram wala ngay jaamu leneen lu dul yàlla ca la wàññi koo dellusiwaat door a dikk euh, tuub tàbbi ci biir lislaam moo tax kon kooku mooy woote bi yonent yi ñaar yooyu mënuñu ci ñàkk faaw nga dàq lépp lu dul borom bi tabaraka wa taala nangoo saxal borom bi képp borom bi tabaraka wa taala ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu illa allah illa ana faabudun musumaa yónni ab yonent ci la la jiitu lu dul wàcce naa ci moom lii mu di laa ilaha illa allah laa ilaha illa ana amul benn buur bu yeyoo dara ci xeeti jaamu illa ana ku moom borom bi tabaraka wa taala mu teg ci ne faabudun kon jaamu leen ma nee yonent bu masu yónni bu ne loolu la la wax nga jottali ko moo tax yonent yàlla yi gën a bari bëre ak seeni noon muy ku mel ne nuux alayhi salaam booteem yàgg na lool ku ne Huud bu mel ne saalix xam ne ñenn ñu ci nekk seen i digganteegi seen i nit sax dafa mujj àgg ci jafe-jafe yu metti ba àgg ci ñu alag leen kenn ku ci ne li nga doon woote borom bi tabaraka wa taala ñettil na ko ci alquran moo di yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru yéen sama nit ñi jaamu leen yàlla dong amu leen keneen ku ngeen war a jaamu kudul moom kon boo seetloo da nga gis ne ba tey saxal gi ak dàq gi yooyu yaar lañ boole ñoom yonent yi di ko woote borom bi ne wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an yabudu llaha wajtanibu taaxut ba tey saxal rek ak dàq nee na xeet wu masa doon wu ne yebal naa fa ndaw ne leen dàq leen lépp lu dul yàlla te jaamu yàlla rek kon loolu leer ma ibrahim alayhi salaam gën na koo leeral ci saxal googu borom bi tabaraka wa taala képp ak dàq lu dul moom borom bi nettali nañu ko mu ne bul fàtte ibrahima ba mu ñëwee di wax ak baayam aku nitam wa id qaala ibrahimu li abihi wa qawmi lu mu leen wax mu ne yaa qawmi innani baraa'un mimma taabudun yéen sama nit ñi lii ngeen di jaamu muy lu dul yàlla day man set naa ci wecc kon kooku màbb na lépp loo xam ne du borom bi tabaraka wa taala inni baraa'un mimma taabudun man day set naa wecc ci li ngeen di jaamu te du te yàlla kon war ngaa saxal dara mu ne illa alladi fatara nii ba mu des nag kenn mooy ki ma bind kooku rek laa jagleel sama jaamu fa innahu sa yahdiin ndax kooku rek moo mën a xotti yoon woo xam ne su ma ci jaaree jub waaye keneen ku dul moom yoonu dëng nga mën a xotti waaye mënoo xotti yoonu jub mu teg ca mu ne wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibi mu ne kàddu googu muy baatu laa ilaha illallah ibrahima bàyyi na ko ci ay sëtam mu di yonent yi juddoo ci aw askanam yépp laallahum yarji'un ndax kenn ku nekk mën a delluwaat ci kàddu googu kon kàddu laa ilaha illallah moom la yonent yi doon doon loolu moo tax foo fekk waliyan yarisu nii wala lu mel noonu yonent buy ñaan ku ko doon du caagi ni ku ko doon ci ay këram wala ay njabootam wala yu mel noonu waaye ku ko doon ci tawxiit lay wax yonent kenn du ko doon ci alal waaye ci woote lañ koy donn woote bu mooy woote bu tawxiid moo tax wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibi mu def ko muy kalima muy benn baat boo xam ne dafa des ci aw askanam ñi di ko donn ku ñëw ku nekk delluwaat ca laallahum yarjiun borom bi tabaraka wa taala bi mu digalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mujj ci yonente yi gën cee tedd daf ne ko wa qada rabbuka alla taabudu illa iyaahu ba tey rek dàq ak saxal yàlla digle na bu leen jaamu kenn kudul moom alla taabudu illa iyaah waxaat feneen ne waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla moom dong waaye bu leen ko bokkaale ak leneen leneen lu mën a doon dàq leen mu dem kon wax dëgg yàlla ay yooyu buñ ko xoolee xool woote yonent yàlla yooyu ñépp maase di woote ci genn kàddu jullit bi lim ci war a jële mooy jaamu moom ka bind rek moo ko yeyoo ka la wërsëgal la xam sa la nëbbu ak sa la feeñ xam sa tey ak sa démb ak sa ëllëg kooku moo yeyoo nga jublu ci moom di ko tàllal say loxo di ko ñaan wala nga di ko jullil wala nga di ko deful benn xeetu jaamu yàlla benn xeetu jaamu da di nag xam laa ilaha illallah moom mu nga xam ne mënta ñàkk daa am ay mbir yoo xam ne bu ci jullit bi jaaree xam gi yomb ko maanaam mooy yoon wi boo ci jaaree danga mën a xam ne laa ilaha illallah ci ngay xam ne yàlla mii nekkete moom rek mooy yàlla waaye ku moom doo yàlla la ci jëkk te gën caa màgg mooy settental turi yàlla yi ak melokaanam yi nga xam ne ci la melal boppam ci alquranul karim ak jëfam yu tedd yi muy def jëfam yu mat yi jëfam yu maase yi nga xam ne lenn lu mu def lu ne rek boo ko seetantale ni lii de lu mat la loo xam ne dara lu manqué nekku ci loolu ci li dimbali nit ci mu xam ne yàlla moom dong mooy yàlla ci la bokk ñaareel ba moo di mu xam ne ki bind ci toog ba mu soob ko mu bind amal lu amul woon toog ba mu neex ko mu yabalub yonent toog ba mu neex ko mu wàcceeb téere digle ca la mu bëgg a digle tere ca la mu bëgg a tere kooku moo yeyoo jaamu ko kon jullit bi dana ci jëlee ne kon laa ilaha illallah moo di kon yàlla rek mooy yàlla ñetteel ba su xamee ne yàlla rek moo jagoo di xéewale xéewal gi nga am gum mën a toon la ko tàmbalee ci xéewalug judd muy xéewal gu rëy xéewalug boole la ak ñu lay sàmm te fayoo leen dara te ku la laal jaral leen jóg xeex di la sàmm ba nga màgg ba doon dara sa wërsëg mu di la ko jox ba nga juddoogul sax ba nga juddu may la wér gi yaram may lam xel may la xéewal gu toll ne nag dugg ci biir lislaam ma ne xéewal yooyu ak ak man-man boobu nga xam ne moo ko def ci yow soo ko settantalee dangay ngay yëg ne ki def lii ci man wax dëgg yàlla moom rek moo yeyoo ma di ko jàmm waaye keneen ku dul moom li ma war koo loolaa ko war su fekkee lu ànd akum xel la su fekkee ku ànd akum xel la moom la ma war moo ko war ndax fa ma jaar la jaar loolu ci li lay dimbali nga xam sa borom ci la bokk mooy xam ne moom doo nga yeyoo jaamu ñeenteel ba moo di ku settantal mbirum yi ñuy tëkkaleeg yàlla ba di ko jaamu defe ne ay yàlla lañu ak seen mbir nam manqué ci kanam yàlla ak nam doyadee ak na nga xame ne mënaluñ seen bopp dara ca ngay xame ne ñooña duñ yàlla ci ngay nangoo màbbe lépp lu dul yàlla nangu ni yàlla rek moo fa nekk xoolal ki defar bant boo xam ne yaa ko yàtt ba mu nuru nit nga teg koo ni lii yàlla la bant boo xam ne yàlla joo ne boo ci sotti woon pétrole tey boo taalee mu tàkk boo ko di kooku mat mat na doomu aadama yàlla moom mi ko yàtt ki ñëw fekk mala aw nag wala mu xar mu jàpp ne lii yàlla la di raay di di defe ne lii mën na koo jariñ wala mën na koo lor loolu yàlla ju mat yàlla la yàlla xam na ne boo xoolee ñi nga xam ne dañuy dañuy jaamu mala lu mel ni ñu jaamukati nag yi yow miy seetaan sax da rus ndax doomu aadama ci jamono ji ñu toll nga xam ne ñëw nañ ba ci jamono yi xanaa nit war naa ñor nag war naa yeewu nga gis ay nit ñu wër aw yëkk aw nag kenn ku nekk di raay muy saw ñi yor ay xot di ko dékk kenn ku ne di raay ci saw yaram foofu doomu aadama weesuwu ko waru koo weesu waxu kay ab photo léeg-léeg nga gis koo xam ne diineem day dem ba àgg ci photo boo xam ne yow kii moo yor appareil photo ko lii di diw nga jël ko di raay di teg ci jëbi wékk ko foo xam ne dangay ngay defe ne su musiba doon ñëw mu aar la doomu aadama weesu foofu kon ma ne boo settantalee mbirum moo xam lañuy ñuy jaamu bant la bu bu dul yëg walla malala boo xam ne xamalul boppam dara xamalul keneen dara wala nit la nga xool nit fa mu jóge mu wóor la ne am na bis boo xam ne nee na cëpp ci suuf si lum man lu ne nit a ko ko mënal waaye mënalul boppam dara loolu yépp a ci jaar muy yonent muy wàlliyu muy nit ku mën a doon jaar nga foofu mooy nee nga cëpp bis boo xam ne loo man doomu aadama la ko mën mënal takat bis a ngi ñëw ci sa kanam yow doomu aadama ak loo màgg-màgg ci kanam nit ñi yoo xam ne bis boobu dana wàll moo di la ne woon ci yow rocc nañ ko nga xëy ne këlën loo man kero nit a la ko man mënal la nga gën a woo nga xam ne yu suufee suufee la ci doomu aadama muy ñëw sang la muur la daal di gasum bax suul la ci su la fa nit ña bàyyi woon lool doo ko am ay tanay ñëw wala ay mala wala yu kenn xamul ñëw lekk la waaye kenn mënu ko waaw ñaari doyadi yooyu nga xam ne benn bi ci nga duggee àdduna bi ci des ngay génne àdduna te amul kenn kuñ la ne lii diw mucc na ci wala kee mucc na ci mu dib yonent wala leneen kon kooku loo gàtt gàttum xel xam nga ne kii yeyoowul jaamu kii yeyoo jaamu mooy ki bind mooy ki sàkk kon ma ne yi ñuy jaamu te duñ yàlla boo xoolee doyadi gën doyadi fi kanam yàlla loolaa lay jàngal ne ñii yeyoowuñ jaamu yàlla rek moo yeyoo jaam moo tax borom bi tabaraka wa taala ñii ñaan kudul yàlla di leen tàllal seeni loxo lan la wax ne in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum fekkee ne a ngi leen di ñaan duñ dégg ñaan moo xam la ngay ñaan bant la moo xam aw nag la moo xam ab xabru la nee na bu ngeen leen ñaanee duñ dégg ñaan gi nee walaw samiu ma stajaabu lakum te kat suñ déggoon ñaan gi sax li ngeen di ñaan mënuñu leen koo may yoruñu ko mu ne wa yowma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum nee na wu baaxoo wala yonent bu baax ba nga xam ne danga ñëw yow sa jaamu yàlla nga jël ci benn cër di ko ko jox te moom bëggut loola bu ëllëgee sa bokkaale googu moom da cay set wecc ne la man lool sama yoon nekku ci yaa ko doon defal sa bopp ba yowmal qiyaamati bu ëllëgee mu yowmal qiyaam yakfuruuna bi shirkikum dañuy weddi seen bokkaale gi ne leen du man maa leen ko digaloon wala ma sant leen ko waaye yéen a ko doon defal seen bopp mu ne lii nag bul ci am looy sikki sàkk ndax wala yunabbi'uka mislu xabiir ka mën a joxe xabaar dëgg-dëgg mu wér nee na mooy ka amul kumpa mooy ka amul kumpa ka xam lépp yàlla mi xam mi bind xam démb xam tey xam ëllëg nee na maa la wax lii maa la ne bu ëllëgee ña nga doon bokkaaleen ñoom ñooy taxaw ne la yaa doon defal loola sa bopp waaye saa yoon newu ci sa digganteeg sa boroom la juróom-ñaareel ba ci yàlla mën a dimbali ba nga dégg laa ilaha illallah moo di jaami yàlla yi gën a mat ci jaami yàlla yi muy malaaka yi ak yonent yi ak boroom xam-xam yi jaamukatu yàlla yi ñoom ñépp ànd nañ seede ni amul kenn ku yeyoo dara ci jaamu ku dul boroom bi tabaraka wa taala moo tax boroom bi ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa yàlla ci boppam sax moo jëkk a seede moom ñi ca tegu mu ne wal malaayika malaayika yi seede nañ loolu wa ulul ilmi ak boroom xam-xam yépp ñi xam dara ñépp la ko tàmbale ci yonent yi mursaloon yaag anbiyaau yaag awliyaau yi ñépp àndandoo nañ seede ne jaamu ki ko yeewoo moo di sunu borom tabaraka wa taala juróom-ñetteel bi ci yi jàngal ba nga xam ne yàlla rek moo yeeyoo jaamu moo di boo xoolee mbindeefam yi ci kaw suuf ak lim ci def ci ay kéemaan ak lenn lu ne nim ko bindee ak ni mu ko yemalee loolu moo lay gindi nga xam ne yàlla mi mooy yàlla nga xool ca soowu ba ca penku nga xool doomu aadama ni mu ko binde faw ñaari tànk jóg taxaw di dox yori loxo ku amulub gàkk wala feebar wala dara dagg ci yow benn système bi mu la binde benn bee ñaari bët di gisee kanam te doo gisee gannaaw yor kawar ci kaw wenn bindiin woo xam ne model ba ko tàmbalee ci aadama ba ci suñ yonni tey benn bi la loolu moo lay jox ni kon ki koy def kenn kee ki koy def kenn kee léeg-léeg jumtuwaay yii nu yor ci àdduna rek da ngay gis benn model ba miin ko ba soo ko xoolee rek xam ni kii usine sàngama ko liggéey moo xam ci oto la ak li oto yi li ñuy bare bare ak li ñuy nuroo nuroo da ngay gis yi oto rek nga xam ne ah kii de ginnaaw marque sàngam la kon usine ba ko liggéey ma nga Japon usine sàngam la tudd te loolu ëpp usine rek la boo xam ne doomu aadama moo ko sos moo fay liggéey itam nga mën a xàmmee ya muy génne noonu nga xool nag jëmmi doomu aadama ci boppam niñ ko bindee népp doon nenn ne mu wóor la ne kon kenn ko binde noonu gisoo keneen ku ñëw ne man damay bind samay nit yoo xam ne seeni loxo la ñuy doxe sa law ku ko mënoon ba def ko nit ñi di ko gis boo wëttuwul ñooñee nga bind moom da nga yeyoo ñu jaamu la waaye loola doo ko mën moo tax bokk na ci borom bi tabaraka wa taala yi mu jox nit ñi muy taxaddiyaat yi moo di hada xalqullah li yàlla bind ngi fa aroni maada xalaqa alladina min lii la yàlla bind kon wan ma ña des lañ bind ña lañu des lañ bind day tolloog seenu doyadi gis nga gën a moos gën a bari ay pexe liggéey ba tegal la avion boo xam ne dañ laa ne juróom benn téeméeri nit xaj na ci liggéey ba teg ko ñépp di ko yéem la muy rëy rëy rëy rëy mi ngi tolloog doyadi ki ko doon liggéey ki ko doon defar muy doomu mooy foofu mun ne jëmm du jóg mukk li fekk du doomu aadama moo ñëw ci biir yëngal ko mu door a dem waaye bu ñu ko bàyyi woon foofu lay maxee fa lay xomaage fa doomu aadama ñëw di entretien muy ñëw taal mu tàkk muy ñëw départ mu door a dem kon la muy rëy rëy tolloo na ak doya di ka ko defar yeneen yi ci def yépp noonu la nag borom bi tabaraka wa taala ñëw bindal la liirub xar bu juddu léegi daal jóg taxaw tàmbali di seet ween wa xam na ne am na ween wu koy xaar ci bitti mu tàmbali di ko làmbatu ci ndey ji di nàmp te du nit a ñëw dikk ne ko kaay jógal ween waa ngi nii wala dara waaye jóg rek defal ko boppam kon hada xalqullah lii la yàlla bind won leen ma ña ca des lañ bind duñ la won lu tolloog li yàlla bind kon mbokki jullit yi faalam annahu la ilaha illa allah aay ju màgg la xamal ne yàlla rek mooy yàlla kooku daf ñuy tegal yu bari moo di dana jaaru ci yow nga gëm ne yàlla rek mooy yeyoo jaamu lu dul moom lu nekk warisu laa jaamu yii ñuy jaamu yàlla nag léeg-léeg am ci ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla te bëgguñu ku leen dañuy jaamu ku dul yàlla te fekk ñoom bëgguñu ko ku bokkaale ci ñoom loolu daf leen di naqari da leen di metti loolu mooy yonent yaag malaayika yaag nit ñu baax ñi ku ñëw bëgg a bokkaale ci ñoom dañ la koy tere sax am nag yeneen ñoo xam ne yëguñu lu xew ñoom lu mel ne bant baag nag waag yu mel noonu kay ka nekk di leen jaamu kookaay alak boppam am nag ñeneen i nit ñoo xam ne moom dañoo bëgg ku leen jaamu la ko tàmbalee ca na ba ci ña leen nuru yor ci ñoom ay melokaan di woo nit ñi pour ñu ñëw jaamu si la ñooñu la borom bi tabaraka wa taala tudde taaxuut ñooñu la borom bi wax ne bu ëllëgee ñooy doon mattum sawara wa wa ñuy lakkee ñi leen doon jaamu yow mañ doon jaamu nga bëgg ko mu neex la wala ngay woote ne kaay leen jox ma cërub yàlla boo ëllëgee yaay doon matt ma ñuy lakkee kooka yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon bokk na ci li nu aay ji jàngal moo di bi mu waxee boro yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xamal ne laa ilaha illallah daf cee teg ne ko jéggalul say bàkkaar te jéggalul jullit yi mu ñi gëm yàlla loolu danañ ci jëriñoo ne képp koo xam ne ci jullit yi la bokk yeyoo nañu di ko jéggalul ginnaaw jullit la ni ko imaam ahmad waxe képp koo xam ne mi ngi julli jëm la bokk ci jullit yi luy bàkkaaram bari bari yeyoo na bu génnee àdduna ñu jéggalul ko yàlla yeyoo na it ñu jullee ko waaye ay mbir la yoo xam ne nit ki du bari bàkkaar ba ñu xañ ko ko lu dul nag bàkkaaru bokkaale bokkaale moom bokkut waaye yeneen bàkkaar yi ci des ak lu ñu rëy rëy su nit ko faatoo jaadu nañu jullee ko sang ko sang ko jéggalul ko yàlla ndax yàlla jéggal ko ak lu bàkkaar bu bari bari kon nit ki du suufee suufe bañ xañ ko àq jooju waaye du rëy rëy it nag bañ ne moom jaratul ñu koy def noonu mu koy faaw ñu jéggalul ko faaw ñu jullee ko faaw ñu jéggalul ko lu dul yenn atte yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko settee ci ñi nga xam ne dañoo faatoo ci biir jihaad fi sabilillah ñooñu ñu wax ne jarut ñu leen di sang wala ñu di leen sang wala ñu di leen jullee ànd ak ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee na leen ñaanal na leen itam ndax jéggalu moom kenn du ko weesu borom bi ci mujjug aaya bi daf ne wallahu yaalam mutaqallabakum wa maswaakum yàlla moo xam seen lépp kooku day won ne jaam bi dara ci ay jëfam moo xam jëfu xol la wala jëfu yaram wala jëfu làmmiñ dara wump ci sunu borom tabaraka kon loolu daf ñuy won ne la ki laa ilaha illallah lu rëy la ci moom ndax yonente bi salallahu alayhi wa buy wax ne ku faatu te xam nga laa ilaha illallah yow tàbbi nga àjjana euh, kooku wax ju rëy rëy la yoo xam ne yeneeni xadis dëggal nañ ko am na beneen xadis bu ne ci buxaari ak muslim daf ne képp ko seede ne laa ilaha waxdahu la sharika lahu nangu ne amut kenn kuñ koy bokkaaleel wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh nga teg ca ne muhammad ab jaamam la di yonentam nangu caa teg ne isa alayhi jaamu yàlla la yonent la yonentam la moom it kàddoom la itam goo xam ne da koo sànni ca yaayam muy mariam muy ku amul baay nangu ne àjjana dëgg la nangu ne sawara dëgg la nee na yii ku ko boole gëm ko te xam ko yàlla tabbal ko àjjana ak nuy bàkkaaram rëy rëy li bàkkaarum rëy rëy li fekk mucc ndax loolu ku ko xas seede mu dëggu ci yow mucc nga ci bokkaale beneen xadis bi moo di bi muslim génne jële ko ci jaabir ibnu abdillah radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne daje naag yàlla fekk doo bokkaaleeg moom dara nangu nga ne moom rek mooy sa yàlla nee na daxalal janna képp ku dajeeg yàlla doo bokkaaleeg moom dara nee na kooku tabbi na àjjana wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an ku dajeeg moom nag fekk yaa ngi bokkaaleeg moom dara nee na daxala naar kooku day dugg sawar kon bokkaale musiba la mooy fekk ci cërub yàlla nga jox ko keneen ku dul moom te danañ ci ñëw ca yee ca kanam insha allah kon ñaari xadis ngoog yoo xam ne dañuy feddlil dig bu rëy di la sunu borom tabaraka wa taala dig moo di boo amee tawxid da ngay tàbbi àjjana yàlla na yàlla may tawxid beneen ba ca des moo di ne ki def bàkkaar yu mag waaye mucc na ci bokkaale pos-posu ahlu sunna wal moo di kooku ab kaccoor lañ koy tudd waaye kenn du ko tudde bi yéefar yayoo na ñu di ko ñaanal yayoo na ñu di ko jéggalul su faatoo yayoo na it ci dundam nit ñi di ko laa biire ndax mu bàyyi caaxaan yam nekk ñëw ci njub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne ku julli sunu julli man salla salaatana wastaqbala qiblatana jublu itam sun qibla bi lekk li nuy rendi nee kooka mooy jullit boo xam ne fas na kóllëre digganteem ak yàlla fas na kóllëre digganteem ak ndawul yàlla muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon kóllëreem googu mu fas digganteem ak boroomam yéen bu leen ko fecci bu leen ko fecci bu leen dikk fekk mu doon ab jullit ngeen ne ko doob jullit mu <laughs> kay ginnaaw nangu na yooyu mi ngi julli mi ngi def jaamu yàlla yi mi ngi wax laa ilaha illallah jàppal ne jullit la ak luy bàkkaaram bari bari ginnaaw ci waa tawxiid la bokk jàppal ne ci jullit yi la bokk bu génnee àdduna lépp lu jullit yeyoo na ko ko jox sa kem kàttan di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala ko yàlla na yàlla boole jéggal allahuma hayyi lana min allahuma axfas alayna diinana wa sabbitna alayhi ila almamaat fa innahu ismatu amrina allahuma aslix lana dunyaana allati fiha maashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha macaaduna wajcal alxayaata ziyaadatan lana fi kulli xayr wajcal almawta raaxatan lana min kulli shar واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqimi salaam